Uh, as part of measures to implement social distancing, the administration of the University of the Gambia said it used all sister tertiary institutions, including the Brikama campus of the Gambia College for the end of semester examination. Students had raised concerns about preparations leading to the examination and amid the effects of COVID-19. More of that in this report for effective implementation of social distancing among students during the end of semester examination, the University of the Gambia will occupy all sister tertiary institutions, including the Brikama campus of the Gambia College. Administration of the country's highest academic institution announced after few months of online classes as a result of the COVID-19 pandemic lockdown that examination will begin by June 22nd. Students challenged the idea mainly on concerns that not all learners were successfully carried on board the digital platform, but the UTG admin hosted a virtual meeting with the students' union to trash out their differences. Students had cited instances of ineffective online classes because of poor network connectivity and late provision of data bundle among many other hurdles in the wake of the digital migration the Dean of the School of Arts and Sciences, who doubles as the chairman of the online lecture committee, Professor Per Gomez, said that the university was aware of students' concerns and that the examination date was respected as a core activity in the academic calendar. If you don't address these things, who is going to pay for them next semester? In thousands of dollars. We are, we are duty bound to respond to those people because they trusted this country. That's the, because this is a public university. Therefore, the nation must rise up and respond. That's what we are doing in the name of the republic. The president of the University Students Union, Ibrahim El Damfa, announced the attainment of consensus with the school administration for exams to be confined to only what was lectured during the online period. Even though we were not able to push the examination date further, uh, the reasons why they suggested for the examination date to be pushed uh, or the problems that they thought will arise were resolved. For example, they thought you know, they will be examined across the syllabus. You know, we made university management to agree that uh, they will examine the students only on the areas that they cover. President of the Law Students Association, Mohamed Jeng, hopes that the examination will be based on quality assurance with due consideration of the plight of students so and uh, for me from the part where i am uh, from the luminaries which is the law i made it clear to them that they have to be careful and make sure that whatever they do is in accordance with the rule of law and any limitation they are going to be given to the student and the forceful uh, of doing things must be in line with uh, fundamental human rights Despite the fact that exams were already scheduled, some students are pessimistic about their readiness to obtain the positive grades they would have earned on normal circumstances. But this being the first time for the Gambia's university, the examination period is expected to last longer than the regular two-week period. For iAfrica TV, Sohna Tunkara. Uh, the University of the Gambia, they are uh, implementing the social distancing amidst the COVID-19 in their forthcoming examination for Fununu. Uh, exam on the 22nd of this month, uh, University of the Gambia. Hamon nañ report nañ ko fii ne gaay dañoo def exam bi dañoo def online lectures bi foofu noonu loolu lañ doon def throughout the COVID-19 waaye students yu bari nag raise nañ concern si kaw loolu ñu ne lectures they are not effective because internet connection bi most of the times even lecturer bi sum dee lecture sax danga gis connection bi mu dem in mu dee am breakthrough and all that so all these things moo tax ne students yu bari ñu ne ñoom duñ dee mun a understand lectures ah, teachers yi luñ nekk di jàngale bu baax te ñu ne dañoo ñoo def exam si kaw loolu so ñoom seen concern moo nekk ne Ah, lectures yi effective wut one number two suñ defee exams bi duñ mun a understand syllabus yoo xam ne loolu lañ leen teach and number three moo nekk this coronavirus stuff so mu nekk loo xam ne dafa am solo toro waaye gis nañ tamit response bi from the University of the Gambia mu ne suñ defuñ exam rek ah, loolu noonu ñooñu naka la ñoo def because dañoo war a for next year tamit gaa ñu def seen exam te loolu tamit dafa nekk an added cost on dem so mu nekk loo xam ne daal mu ngi noonu daal waaye ah, gom nañ ne ne university bi dañoo def seen kanti lay kattan make sure ne tamit students yi seen welfare bi dañ ko consider waaw am loolu it's a war a raise am exams this year mm-hmm. dañ war a bear rek 2020 graduates mm-hmm. duñ musa fàtte this year mm-hmm. waaye comme exams waruñ koo mun a skip. Mm. parce que suñ ko skibee du métti si teacher si de. Mm. si students si la moo métti. Mm. especially university students yi. am um, the cost of uh, e-, every year. payment loolu suñ ko waree repeated next year because oh, I am 100% sure ne suñ leen wax gars suñ waxee ne ñoom duñ exam this year teacher si ñu ne leen ok fine no problem ba next year. next year suñ leen waxee ne dañ have to pay tuition again. duñ ko nangu. because dañoo pay nañ la this year te useuñ ko mm-hmm. so dañ way war a bear with it ñu def exams ñu try because we cannot have repeated grades mm-hmm. loolu um, suñ ko amee dafa affect the education system mm-hmm. because am na ñu nga xam ne especially this primary school stuff ñu yaa ngi war a dem grade one wala this university ñu war a start first year so dafa mel ni dañoo am double first year double second year double third year so we cannot afford that um, dafa am ñu nga xam ne sax ba nga duñ am space. sax fu mu nekk nii university bi. da ngaa gis maybe thirty or more students. in a class in a class or ñu ne la sometimes even fifty sax. dañ la ñoom dañ la dégg gaa ñu koo wax. soo ñu war double those grades dafa metti torop torop si si askan bi so let's dem bear with it rek comme kii nu mu ko waxee rek président bi nu mu ko waxee mu ne wax na leen ne pour ñu. lu nga xam ne loolu la gars yi ticc mm. ñu def éducation ñu conduct education euh, mm. exams bi si si those topics mm. so loolu la gars yi war a def rek suñ conductee exams bi in those topics den ñoom lu nga xam ne liyuñ ko because comme éducation bi nga xam ne ku laa explainal jàkkaarloo moom li nga understand mun la ko wax ne understanduma lii dafa daf dee métti torop waaye tamit ñoom seen boppa dañu war a put more efforts on it déggal la comme nit du la dee mën a defal yëpp yow nga jël yëpp government bi gañu ñu try defal nañ leen classes Gambia mom internet is a problem. Mm-hmm. Why after lool you can go through it again. wala soko mutal nga call sa teacher bi nga ko ah place bi de yang ko way understand mako wala internet ba nga demoon elaborate mo su ko defé teacher bi will be willing to explain mo Why so waxee ne during the lessons li dafa happen mënuma ko li rek nga tié sa bopa so dafa am métti ak gaay dafa am métti kay moo ah, mon yang dégg nga Mariam lu wax lu am solo. Euh, foofu noonu su University of the Gambia waaye comme jafe daal because even sum dee suñ dee am lectures yi nii uh, sometimes dañoo very difficult pour laajte teacher bi because of the time and internet connectivity is very poor and all that so dafa nekk loo xam ne daal jombut yombut so gars yi tamit dañ affect kon uh, am conscience tamit ne maybe seen grade si dina wàññeeku comme nu doon mel time boobu du mun a mel time léegi because online class bi ñu bari understanduñ ko ñu def exam si kaw loolu xam nga ñu bari ñu ngi expect ne ñoom daal dañoo feel dangaa dégga si ñoom neen sa ñu ngi wax ne ah man kay this year aw ma si benn hope so mu nekk loo xam ne tamit uh, it's not encouraging daal te noonu la demee mm-hmm. yàlla def na maa ngi fa woon démba but sometimes dama dee dem jegeeñ some groups pour mun a déglu seen wax because mm. some most of them féebawut leen mm-hmm. most of them comme noo ko waxee lam nekk di wax mm. ne daal ñoom gëmuñ ne sax dinañ ko am because li ñu war a dem def exam sax xamuñ ko because mm. amuñ doon accès si internet secondly du doon baax sometime kon dina nekk boo xam ne ni comme ni ko Soxna Mariam waxee duñ ko twenty twenty bi duñ koo nekk dina nekk loo xam ne kenn du ko fàtteeti because xam naa ne euh, mun neen expect Euh, results yu yu yu poor yeah mun nañ ko expect because themselves ñoom ñoo ko nekk di complain di wax ne man de lii foog ma ne dama leen doon jegeñ nag some groups dégg seen wax demaat fu ñu dee toog because they don't know me because maa ngi doon xaar caméraman beeg yooyu noonu mm. dégg seen conversation naka leen doon waxee exam ci waaye ñu si am 100 pour cent lifin euh, lu leen si doy wala am si yaakaar ne dinañ ko dinañ jàll noo barewul si ñoom mm. because ñoom most of them lañ nekk di wax rek man de xaw ma sax lu ñu war a def te lii sax warutoon a am am na lu nekk si seen xol bon mën nañ koo wax mm-hmm. waaye dafa nekk lu nga xam ne tam nguur gi tam dafa bëgg ñu def ko ku mm-hmm. may na suñ ko bàyyee nekk si yéen ñu na ñàkk nekk parce que lu xew ku nekk xam na ko mm-hmm. mënoon nañu waaye dafa nekk problème tam si government bi because double expensive la moo nekk uh, te ñoom tam dina xaw a am tardement bu tuddi si ñoom waaye man sax dama noonu moo doon xalaatane because lii nii soo expectoon hundred mun na am yaa ngi ñëw am thirty five of su su bëree bu bëri forty mhm. so ñooñu ñëpp dañoo war a nekkal lu nga am ñi ngay dem def si lëndëm la ñoo dem def exam si lëndëm rasaatu wel ba léegi tam pexe am na si as comme an yaa kii naka laata seen professeur bi mm-hmm. gaa waaw Gomes mun neen seet tam yi nga xam ne gënoon nañ ko miin mm-hmm. si mujjee jàng dañ def si yooyu jël exam bi waaye exam bi daal soxna Julle si nu ma nekkut lu nga xamne student ci pare nañ si teacher si ne ñoo xam naa mun nañ parce que xamne ko ñom ñu ko tiim waaye student ci 95 of dem paré wuñ ci mm-hmm. te bëgguñ ko def mm-hmm. te ñak pexé mo tax ñu def te si lëndam lañu dem def ko exactly so dina affect tamit sen grade si ak ak yoy ñun so mu nekk lo xamne dal ah, dafa doy war dal mm-hmm. dafa over doy war ah, si covid 19 bi way ñu move rek ah, ñu dem Nigeria tamit ñu